mi ngi tudd xuratul ayni sëriñ Suhaybu bu taala anhu bind ko mu wax ne guddig fukkeel ga ñaar fukkeel ga ak benn guddig ñaar fukkeel ga ak benn ku ci julli ñeenti raka bu ci ne mu jàng ci faatiha benn yoon ak xul huwallaahu ñaar fukki yoon mel na ne ku moomoon àdduna ak li ci biiram dundale ko ci yoonu yàlla mel na ne it ku jàng tawreet ak linjiil ak zabor ak te buy génn àdduna dana mel ni bis ba mu ci ñàkki bàkkaar kon loolu moo doon naafile gi wasalaamaaleykum abdala baay ba mustafa amina yaayam xayrul anbiya lu waay jàpp na be